xeex lépp loo xam ne dañoo gis ni dëppoowul ak yoon ba noppi itam mën a manifester mu ne nag am na ñu ñun ci jàpp ñoo xam ne tombe moo waral ay gaaf waaye itam kii di président Macky Sall war naa bàyyi xel ci prison yi nga xam ne fees na del dara waralu ko lu dul yenn arrestation yi xam ne teguñu ko ci yoon ba tax na waaye 24 ñi ngi daal di naxaarlu condition yi nga xam ne yenn doomi Sénégal yi moom lañ nekkee ci kaso yi nga xam ne li fa nekk ci ay limu doomu aadama ëpp na waaye itam li ci gën a doy waar ñoom nee nañu kenn respecté wul seen àq ak i seen dignité lépp la ñu jël la tegee ko de côté mu nekk lu leen métti ba tax na ca lañ buruxlu dem ca ki nga xam ni moo di Ousmane Sonko ñu ne depuis ay fan mi ngi nii dañ ko daal di ca biir këram mënul dem mënul dikk moom ak njabootam mu nekk loo xam ne ñëpp xam nañ ne teguwul ci yoon te kenn lañ ci joxañ baaraamu tuuma muy le président Macky Sall moom moomee sax lañ daal di ci lu ñeel dialogue national bi nga xam ni ñi ngi doon amal fan yi ñu weesu ba jox ko conclusion ya fa tukkee ñu ne lii day confirmer di dëggal tout simplement deal bi nga xam ne ñoom waxoon nañu ko ay acteurs politiques doon ko dénoncé ba waral sax lu ëpp ci opposition bi teewuñu woon ci boobu lépp dialogue ba tax na nag waaye 24 ñoom ne nañ yooyu les conclusions tukkee ci dialogue national bi seen yoon nekku ci ñu ngi koy jël tegee ko de côté ci yoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne nelawal population bu Sénégal dong moo ko waral ba tax na ña ngay wax naan nul ëpp ñaari mandat yu tegaloo ci suñu am réew loolee mooy li nga xam ne mooy dëgg dañ ko war a Macky Sall bëgg na koo def bu amee coup d'état constitutionnel lay daal di doon te képp koo xam ne sénégalais nga am lu la naqari ci réew mi na nga taxaw daal di koy bañ xamal ko ne ko ñetteelu mandat dañ ko a nangu. ba tax na ñoom seen bataaxal ña ko jeexalee ci sàkku ci président Macky ngir mu daal di libéré ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi ba noppi itam bàyyi Ousmane Sonko ak njabootam ñuy dem ak dikk ca na mu waree bu ko defee dinañ mën a respecté lépp loo xam ne dafa ñeel ay àqam ak yelleefam te itam bu ñu fàttee ña nekkee ca zone sud ba maanaam ca Casamance ñooñee nga xam ne dañ leen fatt jamono ji ba seen dem ak dikk dafa wàññeeku bu baax a baax waaye 24 di wéyal nag ñu ne nañu daal di delloowaat lépp loo xam ne dafa ñeel sérénité ci réew mi yokk jàmm gi ak salaam gi xool naka la ñuy def ba lu ñeel wàllum xeet yi ak diine ji ñaka bokk ñëpp ñu ànd booloo nekk benn mu am harmonie bu am am solo boo xam ne moo ci am te itam kii di président Macky Sall loolu dong la ñuy xaar ci moom moom mi nga xam ne daa war a jeexal ci atum 2024 ba tax na encouragé ñi nekk ci kaso yi di leen wax nañu muñ ñoom ak seen njaboot ndax ñëpp xam nañ ne la ñuy dund métti na lool waaye ña ngi leen di encouragé di ànd ak ñoom bokk naqar ak métit bi nga xam ni bés bu yàlla sàkk moom la ñuy dund AGT News Amis internautes d'AGT News, bienvenue. Communiqué de F24, cette fois-ci intitulé Tabaski pour tous. Le Sénégal prépare activement la fête de la Tabaski dans un contexte où beaucoup de citoyens, adolescents et adultes, des pères et des mères de famille croupissent en prison pour avoir osé tenir un discours dissonant appeler à la résistance contre l'oppression ou réclamer le droit élémentaire de manifester. Certains se sont juste trouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, incapables de comprendre la raison de leur embastillement. La surpopulation carcérale consécutive aux arrestations abusives et massives traduit la dérive autoritariste du régime répressif de Macky Sall qui ne semble plus se soucier de respecter les engagements du Sénégal en matière de droits de l'homme. conclusions tendant à endormir les citoyens par des formules du genre laisser au Conseil constitutionnel le soin de trancher la question de la troisième candidature. En effet, les dispositions constitutionnelles interdisant l'exercice de plus de deux mandats consécutifs sont sans équivoque et le serment du président la République à les respecter et à non négligeable. En considération de la volonté affichée de violer la Constitution, donc de tenter un coup d'État appelle tous les citoyens épris de paix et de justice à se dresser comme un seul homme pour barrer la route aux pouvoiristes qui, par la manipulation et la terreur, veulent nous imposer un troisième mandat illégal et illégitime. pour la préservation de la paix civile, F24 recommande au président de la République de libérer tous les détenus politiques, de lever le blocus du domicile d'Ousmane Sonko, ainsi que les mesures restrictives affectant le droit d'aller et de venir qui asphyxient les régions du Sud. C'est en permettant à tous les Sénégalais de fêter dignement et librement la tabaski auprès de leurs proches que le président Macky Sall peut enclencher la descalade et renoncer à l'aventure du chaos Tabaski pour tous. Ramener la sérénité dans ce pays, cultiver un climat de paix, préserver l'harmonie ethnico-religieuse, c'est ce que F24 et de nombreux citoyens attendent du président Macky Sall qui termine impérativement son magistère en 2024. F24 encourage l'ensemble des détenus politiques du régime de Macky Sall et leurs familles tout en leur réaffirmant sa solidarité et sa compassion. AGT